leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne si yéenay suivre seen bii di Multi Aziz TV vidéo tay nag dafa am solo lool ndax tey dañu ñëw jàngal leen benn moo bu ndaw mu nekk question interrogative comme yi si jotoon jàng bu ci mel ne u di tekki fan wala qu'est-ce di tekki lan wala comment di tekki naka ak yeneen ak yeneen question interrogative bi indi indil mooy kii kii li muy ci wolof mooy kan kan lay signifié ci wolof am na nag foo xam ne du fa signifié kan mooy bu nekkee pronom relatif waaye tey buy signifié kan mu nekk pronom interrogatif lañ ñëw jàngal leen kon balaa ñu commencé vidéo bi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné activé cloche bi te ngeen like ko partagé ko ñu tàmbali qui es-tu Qui es-tu yow la kan yow la kan qui t'a demandé de le faire qui t'a demandé de le faire kan moo la digal nga def ko kan moo la digal nga def ko qui est ton qui est ton kan mooy sa papa kan mooy sa papa Kita aprisa Kita aprisa kan moo la jàngal lii ku la jàngal lii qui sont tes parents qui sont tes ñan ñooy say waajur ñan ñooy say waajur qui t'a fait ça qui t'a fait kan moo def lii kan moo def lii avec qui tu vas au marché kan ngay àndal marché kan ngay àndal marché ñu ngi lay nga abonné activer cloche bi ndax loolu mooy tax vidéo bu ñu dugal mu mën directement kaay bokk ñu njëkk njëkk seetaan jaajëf qui t'a seen montre qui t'a offert seen montre kan may montar bi kan moo la may donné à donné kan nga ko jox kan nga ko jox à qui tu l'as demandé à qui demandé kan nga ko laaj kan nga ko laaj Tu es avec qui kan nga nekkal kan nga nekkal kii êtes-vous qui êtes-vous yéen la ñan yéen la ñan qui cherchez-vous qui kan ngeen seet kan ngeen di seet kii vous a envoyé kii vous a envoyé kan moo leen yónni kan moo leen yonni kii vous a demandé de faire ça qui vous a demandé de faire kan moo leen digal ngeen def ko kan moo leen digal ngeen def ko qui vous a montré le chemin qui vous a montré le chemin kan moo leen wan yoon bi kan moo leen wan yoon bi kii était avec vous qui était avec vous kan moo nekkoon ak yéen kan moo nekkoon ak yéen qui a fait pleurer l'enfant kii a fait pleurer l'enfant kan moo jooyloo xale bi kan moo jooyloo xale bi qui est entré dans ma qui est entré dans ma chambre kan moo dugg sama biir néeg kan moo dugg sama biir néeg qui a touché mon téléphone qui a touché kan moo laal sama téléphone kan moo laal sama téléphone ki a frappé la fille qui a frappé la fille kan moo dóor xale bu jigéen bi kan moo dóor xale bu jigéen bi qui est venu qui est venu kan moo ñëw kan moo ñëw qui sont venus ici qui sont venus ici ñan ñoo ñëw fii ñan ñoo ñëw fii qui est venu ici quand je suis sorti qui est venu ici quand je suis sorti kan moo ñëw fii bi ma génnee kan moo ñëw fii bi ma génnee qui a apporté la lettre qui a apporté la lettre kan moo indi bataaxal bi kan moo indi bataaxal bi kii a cassé le verre qui a cassé le verre kan moo toj kaas bi kan moo toj kaas bi kii sont les lutteurs qui sont les lutteurs ñan ñooy mbër yi ñan ñooy mbër yi qui est le suivant kii est le suivant kan moo ci topp kan moo ci topp d'après toi qui va gagner d'après toi qui va ci li nga foog kan mooy am ndam ci li nga foog kan mooy am ndam Qui est cet kii Qui est cet kan la waa kan la kii sont ces kii Qui sont ces gens ñii ñan lañ ñii ñan lañ Qui veut venir avec moi Qui veut avec moi kan moo bëgg a ànd ak man kan moo bëgg a ànd ak man qui est l'homme que tu parlais tout à kan mooy ki nga doon waxal sànq kan mooy ki nga doon waxal sànq kii vous a la porte kii vous a la porte kan moo leen tijjil bunt bi kan moo leen tijjil bunt bi Qui a annoncé la nouvelle Qui a annoncé la nouvelle kan moo yëgle xibaar bi kan moo yëgle xibaar bi Qui va le faire Qui va le faire kan moo koy def kan moo koy def qui sont les responsables qui sont les responsables ñan ñoo ko res ñan ñoo ñu ko res qui est le voleur qui est le voleur kan mooy sàcc bi kan mooy sàcc bi qui vend ses jolis tissus qui vend ses jolis tissus kan mooy jaay tiise yu rafet yi kan mooy jaay tiise yu rafet yi qui est d'accord avec moi qui est d'accord avec moi ku ànd ak man ku ànd ak man kon tey loolu moo nekkoon vidéo bi su fekkante ne si neex na leen ñu ngi leen ñaan ngeen abonné activé cloche bi te ngeen like vidéo bi partagé ko te aussi bu leen fàtte di commenter ñu ngi leen di jox di ci beneen vidéo jaa ngeen